على من عليه asalaamaaleykum mbokk yi yamaan mbégte loolu di ànd ak yéen ci xibaaru màggal Touba di leen dalal jàmm ci dëkk bu sell bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 2015 euh, nuy fàttaliku bis ba nga xam ni Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké moom moo ko jiitee tey nga ànd ak départementique bu Serigne Amadou Gueye Ndiaye di benn bànqaas ci commission culture et communication bi nga xam ni Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma moom moo ko jiitee muy ay xibaar journal officiel ngeen gën a fës ci xibaar yi dana bokkoon ci xibaar yi tukki nemmeeku bi nga xam ni kon président Macky Sall doon na ko def fii ci dëkk bu sell bi ci résidence Khadim Rassoul ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre ci atum 2015 Sidi Mokhtar Mbacké dalal ko président Macky Sall kàddu bokk na ci la nga xam ni kon wax na ko ne kon dana taxawal benn l'hôpital bu nga xam ni ñaari téeméeri lal moo fi am Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké moom mi nga xam ni kon moo jottali kàddu xalif bi wax na ne moom ngi koy gërëm ci mbébét yooye mu am fekk na Serigne Cheikh Habib Mbacké moom mi nga xam ni kon moo jiite commission sociale santé yëkkatee kàddu dellusiwaat ci ñi nga xam ni kon noonu la murid bi war a mel wéetal boromam ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee woon waaye te indi ay tegtal ci li nga xam ni kon noonu lañu war a jaamoo yàlla moom danañ ko déglu ci xibaar yi sax moom mooy nekk gan gi Sëriñ Cheikh Aliou Mbacke moom moo jiitee Maawu Rahmati dikkaat ci jafe-jafe yi nga xam ni kon ndox mi am na ko ci dëkk bu sell bi waaye dellusiwaat ci la nga xam ni kon jot nañ ko def ci ay liggéey fuite yëpp defar na kon yaakaar na ne na am ren duñu ko am Sëriñ Mbay Sarr bokk ci ñi nga xam ni kon ñoo jiite te sëriñ Modou Lo Ngabou jiite ko ñoom nag seen liggéey weesuwul fexe ba ñiy dëggu ci dëkk bu sell bi am uh, worma bu nga xam ne kon danañ ko jox dëkk bi dikkaat na ci tere yi waaye it sàkkuwaat ci ñi nga xam ne ñoo fii ñëw nu xool uh, seenu meloo xoolaat ko ndaxte dëkk bu sell bi uh, lu nu mat a wormal la dinañ ko jeexale ganu xibaar yi ñu fàttali kon xibaar yooyu département intique moo leen koy dégtal baaxee jamono ci caméra bi moom du Moustapha Mbaye ci kàddu salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu mbokk yi kon dal leen jàmm ci dëkk bu sell bi nu leen koy waxoon ci bopp xibaar yi président Macky Sall kon ñëw na ci dëkk bu sell bi siyaare si Serigne Sidi Mokhtar Mbacke xalifa général des Mourides daje bi amee woon fii ci résidence Khadim Rassoul ci teewaayu kilifa yu bare bari ak ci teewaayu ñu nga xam ne kon doon bokk ci gouvernement Macky Sall président de la République nag yëkkati na ay kàddu wax ne kon mébét ya mu amoon yooyee la am tey ba na kon li jëm ci wàllum Ila Touba dana fexe ba lan ca mu mat sëkk fexe ba dëkk bu sell bi am benn l'hôpital bu bees bu nga xam ni kon ñaari téeméeri lan lan fay def lu ko weesu it dana dem daal di inaugurer benn escadron la gendarmerie nu déglu président Macky Sall li mu dénk Serigne Bakhay Dia. déggal sëñ Touba muy war naa def sam kem kattan ngir féetal fi ma la war a féete ci liggéey boobu moo waral nag lépp loo yëkkati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 soxla dem bu lay yóbbu fenn loolu yëpp nag ay yéene la ak ay liggéey yoo xam ne lu ñu tàmbali la lu bare moo tax lu may faral di diggee waaye bu ma waxee rek de fekk am na fu ñu ko sukkandiku tey li des mooy sa ñaan ñuy mottali yéene yi may gérer itam sa rakk yi fi teew yëpp ndax ku gis tey jotaay bi xam ne mu nekkoon kon président de la république euh, Macky Sall kàddu yooyee mu yëkkati ci kanamu Serigne Sidi Mokhtar Mbacke euh, Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacke moom mi yore kàddu xalif bi moom moo jottali yooyu kàddu euh, bokk na ca la nga xam ne kon wax na ko ne kon moom xalif bi mi ngi gërëm président Macky Sall ci li nga xam ni kon weesu na waaye di ko gërëm ci mbëbët yi fësal ne kon lu dul Serigne Touba moom si Sidi Mokhtar Mbacke ñoru ko rax ci dolli mi ngi wax ne kon lépp lu nga xam ne mas na ko wax moom président Macky Sall matal na ko déglu Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké. Serigne bi rek mu yóbbante mayee ci président loo xam ne ci làmb ñam la ko waxee ndax ñu ngi toog te ko xam ku toogee jataayu seex yi seex yi doo ko yokkal wax na ma léegi ne la ne ma naa la xamal ne moom de amul lu Serigne Touba képp koo xam ne jàpp nga Serigne Touba dana la jàpp képp koo xam ne nag jàppoo Serigne Touba dana maam ceew nee na Serigne Touba rek ak njaboot bi meer naa ko wax wax ma yi dama naa la wax ne mu ngi lay sant bu baax dëgg gërëm ndax sa taxawaay moom gis na ndax jëpp yitte joo xam ne wax ko rek bu yàlla mooy nekk fa sensé def ko ko ba la koy jotu kon nag mi ngi lay na na yéene yu bari yi nga am ci dëkk bi ndax la ca jiitu rek bi nga xam ne tegoon nañ xeer bu te moom mii mu ñëwoon teg si ko te muy projet boo xam ne man na ñeenti téeméeri bi daal yu tegal loolu ko amul yéene ci barab doo ko fa def kon nee na ñu ngi ci sant bu baax di la ci gërëm ba ca risaate naaj yi nga xam ne am nga ko ci yi ci tëli yi nga xam ne tàmbali yaa ngi ko fi bëgg a tàmbali xëy na du ëpp weer wala lu ci tegal mu tàmbali loolu itam bañ ci liggéey fa saasa def nga ko ba defe ko naka la ñu xam beneen ba ci dolli ko ci wàllu sécurité bi nga xamee ne dëkk bi ci jamono yële weesu amoon na ay xat-xat ci wàllu sécurité mu yónni ma ma ànd ak El Hadj Maam ci yeneen yitte ba bi di nee na bu soobee de Touba fexe ba dolli kaaraange ga ba dëkk ba mel ni ko sëriñ Touba bëgg fa sens nga daal di woote ci sa kanam joxe ndigal ne nañ ci tabax ay escadron benn ak yeneen cas yoo xam ne gendarmerie ngir dëkk mën a am sécurité. loolu itam ëpp gu ñaareel yàlla dugal àgg ba tey jii wala suba ci lañ yoo xam ne ci lañ koy indi loolu itam ñu ngi lay sant bu baax di kon ba ca risaat mooy hôpital bi nga xam ne li wax nga ko léegi muy naan loo xam ne waxoon nga ma ne amoon nga yéene tabaxal sëriñ bi ci dëkk bi benn hôpital boo xam ne mooy ëpp bi ci ndax Tuubaa mi ngi ko loolu lépp itam nag loo ci def dana sëriñ Tuubaa ba bëri am kon ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di la ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo tax nga jëm. li loolu kon moo tukkee woon ci daje bi am solo bu amoon fii ci résidence Xaadimu Rasuul doxoon ci diggante président Macky Sall ak Serigne Sidi Mokhtar Mbacke Serigne Cheikh Abi Mbacke moom moo jiite commission sociale santé hygiène bu commission d' organisation Magal Touba yëkkati tey kàddu yu am solo jëmale ko ci ñi nga xam ni kon ñoo mbokku taalibe yi wax ne kon Serigne Touba la mu namoon ci murid yi mooy ñu wéetal suñu borom mu indi ay ponk nees lañuy ñuy wéetalee suñu borom nga xam ne nees la koy def mën a ragal yàlla nee na kon Serigne Touba soxlawul ab intégriste nu déglu Serigne Cheikh Abi Mbacké. waaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp ci turu Cheikh Sidil Muxtaar ak turu Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ni moo jiite comité d'organisation bi tofal ci Serigne Ousmane ak Cheikh Abdou mi nga xam ne moo leen fi yebal te comité bi dañ koo def ay pàcc yu bari rek liñ ci yor nag mooy santé ak social ak hygiène waaye mi ngi dox na mu war a doxe bu baax a baax ndax ndigal rek lañ ciy déglu te noonu liñ ci yor li ci ëpp ci sëriñ bi lay jóge moo tax wàllu socialub sëriñ bi lañ yor yuruñ socialub keneen ko defee nag ñuy nuyu ñëpp di di labirante rek ndax noonu tuuti nañ ci wax lool waaye ndigal rek mooy tax ñu yëkkati kàddu suñ ëboo nag dafa tànn ñu labiré suñ mbokki taalib yi nga xam ne noo bokk yaakaar xaadim rasul xam ne mooy suñ yaakaar addina ak àllaaxira di di soññ itam ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu sañe soññ ci ñu njàpp suñ Tuubaa mi nga xam ne amuñ lu dul moom bañ a roy feneen bañ a xool feneen bañ a bëgg leneen lu mu amul ndax doy nañu sëkk ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi doy nañ sëkk li tàmbalee ci Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Sidil Muxtaar mi te woote yi bari na lool fi ak jëf yi nga xam ni lislaam lañ koy tudde te dëppoowut ak lislaam ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laabire woon nañu ci ne bu ngeen dundee tuuti dangeen gis ak woote gu bari waaye maa ngi leen di dénk sama sunna si nga xam ne ñi ma fi wóotu ñoo koy toppatoo ba faaw ngeen ci jàpp mu nekkoon kon Serigne Cheikh Abi Mbacke moom sax mooy nekk sunu gan ci ñaareelu xaaj bi maamu raxmati kuréel la bu nga xam ni kon Serigne yu Mbacke moom moo ko taxawaloon ci ay jamono lam te namoon weesul fexe ba jafe-jafe ndox yi am ci dëkk bu sell bi ñu daal di koy dindi ba mu set wecc ay jéego yu am solo jot nañ ko ci def Serigne Cheikh Aliou Mbacke moom moo jiite maamu raxmati nee na def nañu liggéey yu am solo rawati ay fuite yu nga xam ni kon daan na gàllankoor dem ak dikku ndox bi muy ay fuite xam ni jot nañu ko defar ba tax na kon am na yaakaar ne màggalu ren bi loolu nu déglu Serigne Cheikh yu Mbacké di wax nag ci mbirum ndox ne alhamdulilahi rabil alamin li fi am ren mosu fee am ci ndox ndax ñun maîtriser nañ ko bu baax euh, effort yi fi def musul am bi nga xam ne Serigne Saliou jox nañu ndigal deux mille euh, deux mille euh, six ne nañu jàppale gouvernement ci ndox mi ndax ndimbal da ca fekk loxol borom fekkoon nañu réseau bi mu am perte quarante pour cent ñun depuis lors euh, réparé nañu fi ay fuite du toll ci 9678 ci fi ma leen di waxee ci ay bën-bën waaye ci fan yi ministère de l'hydraulique ci ndigalal président ak ci ndigalal le ministre de l'hydraulique Mansour Faye yabal nañu fi ay ndaw yu mat ndaw muy euh, directeur OFOR ak jox ak régional bi nekk fii di 6 ñu taxaw dëkk bi bu baax a baax jiitu lu mat ñaari weer ne ci terrain bi di xool forage par forage yi baaxul ñu réhabilité leen yi nga xam ne pompe yi dafa paanoon ñu relever pompe yi defaraat ko indi fi lu mat 34 kilomètres yoo xam ne dañ ko def ci réseau bi yokk loolu wax dëgg yàlla lu am solo la te bu dee ay château itam doy na dafa tolloog nag màkka boo ko dee comparé ak fii màkk dañoo limité la fay dem te fii yaakaar naa ne kenn limité wu ko kenn xamul ñaata la kon loo xamul mënoo ko prévoir wax dëgg yàlla loolu góorgóorlu la boo xam ne bu ñu demee ba mu am satisfaction loolu effort bu rëy rëy la fii defe naa ne Touba amul porte bu ñuy tëj fu neex waaye dafa ne ci centre réew mi fu neex waaye jóge ñëw li fi nekk ci mbooloo kenn xamul dafay bari ba mu waaye li fi ne ci ndox forage yi ne capacité forage yépp dañ koy exploité mas naa ko wax sëriñ bi daaw ne ko seen woote bi dafa barkeel ba tax na loo waaje ren boo waajalul ñaaram déwén bu boobaa bootul du mat waaye wax dëgg yàlla li ma noon def nañu ko euh, kon alhamdulilah loolu ñu ngi sant bu baax. mu nekkoon Serigne Cheikh Xaliou Mbacke moom mi nga xam ne que moo jiite Maawu Rahmati ñii màggal si war na nu sàmmanteeg tere yi dëpp ak ndigal yi fexe ba war mooy dëkk bi nu matal ko mat sëkk loole nag muy ay kàddu yu nga xam ne Serigne mbay saar moom mi nga xam ne que moo topp ci Serigne Serigne Modou Lo Ngabou moom yiite Safinatul Amaan moo ko yëkkati moom di sàkku ci ñi nga xam ne que ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi nu fexe ba du ñu fi def lu nga xam ne dëppoowul ak li Serigne bi santaane nu déglu Serigne mbay Sarr. fas ko yéene bu gan ñi ñëwee nu daloo leen dalal leen noo ngi ko tàmbali ci setal dëkk bi ñu ko tàmbalee ci setal dëkk bi ndigal ndigal lan ci am ñu seetalee dëkk bi ba noppi noo ngi fi ñu toll tembe noo ngi ci waaj jaay woo xam gan gu dikk mu na ne waaj nanu ba bu ndikkee daanoo am fu nu ko joxoñ ca boo waxtu jotee daan am lu nu ko jox te loolu lépp nag baaxu sëriñ bi rek ci la nu ko baaxee. nde du sunu du sunu njàmbaar du lenn lu may fas yéene jëfe li ndigal sëriñ bi sëñ bi dem boo fas yéene jëm ci moom rek moom moo lay gàttan lu boppam ci yëpp fànn noonu ni ko waaje nag warloo ko ne mu war ne ne ñii dikki Touba daa am dikkin wi nu mu leen waree ana nu leen waree mooy xam ne Touba de lan jëm waaj ko waajal ko ni ñuy waajale kuy dem màkk fas yéene booy dem màkk da ngay fas yéene sell sellal ngir la nga fay sàkk suñu borom defal la ko ca bis ba su loolu nag kuy ñëw Touba noonu nga war a waaje day mel ne nag Serigne Touba moom ci wàccaay dimbali nanu na mënu dimbalee na dafa ne nii laa ko bëggee kii nga xam ne da ngaa jëm ci mu ne mu dikkin bi nii laa ko bëggee melo it nii laa ko bëggee day mel ne nag nit ñi amatuñ ci kumpa kuy dikk Tuubaa da ngay jot mel melokaan wu yiw wow lislaam boobu taalibe soo ko defee boole ko boo dikkee tënku ci sariya ak sunna na la wóor ne la nga fi da am te it sëriñ bi moom ñëwul bor daam pay lépp lu mu nuy waajal ba ko sant la mu nu cay warlul waajal na ko ba ba ma mu teg kon nag ana lu ci njàmbar njàmbar gut am ana lu la koy may foo si yéene tënk ci ndigali Serigne Touba mu nekkoon Serigne Mbaye Sarr di kilifa ci safinatul amaan xibaar yi xaaj bu njëkk bi jeex na am pàttali laata ñu dugg ci ñaareelu xaaju xibaar yi euh, président Macky Sall ñëwoon ci dëkk bu sell bi siyaare si Serigne Sidi Mokhtar Mbacke loolu amoon ci résidence Khadim Rassoul bokk na ca la nga xam ne ko yëkkati na ko ci ay xibaar nekkoon dana fi defal benn l'hôpital bu nga xam ni ñaari téeméeri lal lay am euh, Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacke gërëm ko ci euh, ndigalu xalif bi ci li nga xam ne kon mooy mbébatam yooyee déglu ngeen leen ci biir xibaar yi Serigne Cheikh Habib moom mi nga xam ne kon moo jiite commission dikkaat ci ni murit bi war a mel ni murit bi war a ragal yàlla ndax loolee mooy li nga xam ni moom la Serigne Touba sàkku ci ñoom dégg ngeen côté it mooy nekk suñu ganu xibaar fekk na yeneen ponk jëm ci wàllum ndox mi waa ma Rahmati dafi jéego ay jafe-jafe yu bari bari nu saafara ko fii di nu réparé ko Serigne Cheikh Aliou am yaakaar lool ne jafe-jafe yi ren ci wàllu ndox du tar dara Serigne bay Sarr moom mu nekk euh, kilifa gi topp ci Serigne Modou Lo Ngabou euh, ci Safinatul Amaan di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy màggal seenu fexe ba lépp lu ñuy def mu dëkk bu jëkk bi dem dellu si dikk ak yéen ci ñaareelu xaju xibaar yi. ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk lay doon muy gan gi Serigne Cheikh Abi Mbacké moom mooy président commission sociale santé hygiène waxtaan bu yaatu euh, la seq ak waa département intik dikkaat ci murid bi ni mu war a mel ni ko Serigne Touba bëgge nu déglu ko ci waxtaan bu yaatu bi. waaleykum rahmatullahi taala ngi nuyu ñëpp ci turu Cheikh Sidil Muxtaar ak turu Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ne moo jiite. comité d'organisation bi tofal ci Serigne Ousmane ak Cheikh Abdou mi nga xam ne moo leen fi yebal te yor wàllu communication comité bi dañ ko def ay pàcc yu bari rek luñ ci yor nag mooy santé ak social ak hygiène waaye mi ngi dox na mu war a doxe bu baax a baax ndax ndigal rek lañ ciy déglu te noonu liñ ci yor li ci ëpp ci sëriñ bi lay jóge moo tax wàllu socialub sëriñ bi lañ jor yuruñ socialub keneen ko defee nag ñuy nuyu ñëpp di di labirante rek ndax nun tuuti nañ ci wax lool waaye ndigal rek mooy tax ñu yëkkati kàddu suñ ëboo nag dafa tànn ñu labiré suñ mbokki taalib yi nga xam ne noo bokk yaakaar xaadim rasul xam ne mooy suñ yaakaar àddina ak àllaaxira di di soñ itam ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu sañ a ci ñu jàpp Sëñ Tuubaa mi nga xam ni amuñ lu dul moom bañ a roy feneen bañ a xool feneen bañ a bëgg leneen lu mu amut ndax doy nañu sëkk ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi it doy nañ sëkk li tàmbalee ci Cheikh Moussa ba ci seex Sidil Mokhtar mi te woote yi bari na lool fi nii ak jëf yi nga xam ni lislaam lañ koy tudde te dëppoowut ak lislaam ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laabire woon nañu ci ne bu ngeen dundee tuuti da gis ak woote gu bari waaye maa ngi leen di dénk sama sunna yi nga xam ne ñi ma fi wóotu ñoo koy toppatoo ba faaw ngeen ci jàpp te wattandiku bidaa yi nga xam ne day sot ñu man yaxis minkum fa sa yara ixtilaafan kasiran fa bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrasidina min baadi tamassaku biha wa addu alayha binnawaajis wa iyaakum wa muxdasaati al umuur fa inna kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi naar na maa ngi leen di wattandikuloo yi nga xam ne day sos ak woote yu bees yi nga xam ne day ñëw ndax loolu kat bépp bidaa ak réer la leen di jëmale ci sawar ne nee na bàyyee naa leen loo xam ne bu ngeen ci jàppee lu ngeen réer mukk ci àddina mooy bàyyee naa leen kitaaballahi wa sunnati te wala talbisul xaq bil baatil wala tubaddilul xabisa bi tayib nee na bu leen foog dëgg di ci muur ay neen bu leen jaawale lu bon itam ak ak lu teey suñ boroom leeral ko ne sama téere boobu ak sama diine ji maa ngi koy donnale ñi nga xam ne dañoo sonn ci man lool jàppal ma sama diine ji ba ma tànnal leen sama bopp summa awrasna al kitaaba lasina naa min ibadina nga xam ne loola ak labiré la gunu sun borom labiré ñëpp war cee bàyyi xel baax a baax suñ jàmbaar jooju nga xam ne mooy xaadimu rasool nag bokkoon ci ñooñu mu tànnoon moom suñ borom muy wane ab taxawaayam moom ne lu ngeen mën di dégg di na xam ne man jaamub yàlla la boo xam ne damay liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te yaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma siltu sa tabarru'i min kulli man bil kufri soo tajarru'i wala udahimu sawit tanassuri insha man yamunnu bit tabassuri na ngeen wóor ne man jaamub yàlla la boo xam ne damay jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi te du ma daj mukk di di di génn ci kéefar ak mbooleem ku koy ku koy ku koy ku koy dimbali te du ma maslaak ñoom itam ba faaw ne nee na sama diine bu ngeen ko bëggee xam mooy topp yàlla ci sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi koy jaamu di ko liggéeyal moom yonent bi di yaakaar ci loolu nag may mbégum mbooleem ku ragal yàlla ne nag yéen ñi nga xam ne yéen yéen ma gëm wala yéen ma topp na ngeen sax ci àndandoo nekk benn di jëfe li nga xam ni moom la téereb yàlla boobu indi ak sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa su ko defee bu ngeen bu ngeen ci jàppee loolu mooy sama yoon wi nga xam ni mooy ñu baax ñi ma jiituwoon ñëpp ca lañ nekk diini ya taatul ilaahi bi sunan wali yu xallidu safaa wal minan abuduhu saa xidmatin lil muntaqa wa artaji kawni surura si tuqa billahi duumu fi ictisaamin waamalu bima bihi jaa al aminu l aadalu bima bihi xad jaana min alkitaab tamassaku wa bilxadisi walsawaab haasi tariqati wa fiha almau taraaix alxawmi nee na li mooy sama yoon wi nga xam ni gaa yi baax yépp ci lañ jaaroon nee na li ngeen di wax nag naa damay jihaat dëgg la damay jihaad jëm ci yoonu yàlla wa ma xaalukum inni ujahidu saadixun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil uloomi wa bit tuqaa abdan xadiman wal muhayminu saahidu nee na ni may ni may jihaate nag laa leen di wan ndax moom yàlla da koo indi ngir xett li mbindee képp ku bokk ci moom wala li muy digli ak lam nekkoon lépp dara luy lor doomu aadama nekku ci di xett li mbindeef yi di leen sowe àddina ak alaxira mu ne indi ujahidu bil ulumi wa bit tuxaa maa ngi jeexaate ci xam-xam na ak ragal yàlla fekk yoon wi ci loolu la ko sos nee na dangay xam lu ba noppi ragal yàlla nangoo jaamu yàlla di liggéey mooy xidma moo ko fi njëkk a indi moom bi ci des mooy tegginu bi ci des mooy bañ a lor doomu aadama bi ci des mooy bañ a tooñ kenn ku la tooñ nga baal ko mbokk yi kon xibaar yi buur na ñu leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu gi ngeen ko doon teewlu ñu leen fàttali ne xibaar yooyee euh, département intique bu Serigne Amadou Gueye Ndiaye jiite euh, te muy benn bànqaas ci commission culture et communication bu Serigne Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma loolee nëpp nekk ci ndigalu Serigne Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacke moom mi nga xam ne kon mu jiite comité d'organisation bi xibaar yooyee mënees na ko am ci magal-touba.org asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu.